cay cay cay cay cay waay waay am na ndam Afrique am na ndam Viviane am na ndam dañ koo dañ koo boole woon ci la nga xamante ni moom mooy jongante bi doon def muy awar ah fil gañe dafa gañe fi demoon na bay simeeku ñu woo ko ne ko Viviane gañe nga barke alxuraan karim jël na trophée bi indi na ko Sénégal sagal nga Sénégal sagal nga Afrique xamoon naa ne yow foo dem am lu baax sa xol rafet na Viviane baax nga yiw nga sell nga sa xol rafet na loo am bokk ak doomu aadama xamoon naa ne dooñu rusloo fële ca Rwanda ba pare rawatina nga ànd ak borom xol bu rafet bi muy buuse ko cëpp mu gunge la topp sa ginnaaw nga daggal ko ba béyee ba Rwanda ànd ak moom xam nga ne moos mënoo amee noonu gàcce Viviane am na ndam Sénégal am na ndam jooy na nag jooy yu parce que jogante bi moo métti xoolal ñoom fa nekkaloon ay Fally Ipupa ay ay yow ay ñoom Nicki Minaj ak Chris Brown nag ñëpp a nga fa koo xalaat nag ay ñoom dajjog ku nee nga fa Viviane jël trophée bi téye ko mais Viviane kontaan nañu Sénégal kontaan nañu ña doon joganteel na leen gars xool du ñu ñu ndaw de déedéet yaa gën a tuuti si ñooñu te jël nga trophée bi wane nga sa bopp Afrique kontaan na Sénégal bëgg na may leen ma kër yi Viviane sidit Viviane sidit Viviane sidit kontaan